réew mi bañ na dootuñu nangu kenn ñu réew mi bañ naa réew mi bañ naa déedéet dootuñu fe nangu buumu jaam jaam mbokk yi asalaamaaleykum wa frère euh, président Ousmane Sonko may dellu di waxtaan ak yéen ci lu gàtt euh, un appel euh, bi mouvement pour la défense de la démocratie di M2D bi nga xam ci lañu bokk di parti politique ak mouvement citoyen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 communauté internationale mom xamul ludul, luñ ko won ludul dul xamuko xamu tax M2D nak ñi nek ci biir kasso bi waru ñoo gëna goré ndax la tax ñu dem fofu ñun ñi la rawatina man mi nga xam man lañu ñu ni bëgg nañ maa faagagal ba tax ñu jox ñu ne loolu nag mënuñu ko continuer di sétal bëgg nañu jamm torop té dinañ ko dox ba mat sëkk réew buñ ci nekké ñepp wara doxando dem ci jamm